wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man bi ihsanin ila yawmi ddin amma baad nuxayikum bi taxiyati lislaam ala wa hiya assalaamun aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen baal di ziyaar ñi nga xam ne ño safo seen télévision Thiès Info di nuyu mbokk yépp tabaarakallaahu di leen ñaanal yàlla suñu borom subhaanahu wa taala na yàlla defal leen yiw àddina ak alaaxira bi jaahim nabil Moustapha sallallahu alayhi wa mu mel ni dellusiwaat nañu ak yéen ci kàttanal yàlla fas yéene yeggale li nga xam ne doon nañ ko waxtaan ci lu aju ci koor waaye mi ngi aju ci li nga xam ne mooy charte yi. tàmbale woon nañ ci waxoon ci yi nga xam ne moo ko jiitu woon yaakaar naa ne ñu nga tolloon itam ci fi nga xam ne moom mooy ki majeur waxoon na lañ ne koor pour nit ki mën koo def dafa am ñaari groupe yoo xam ne yow danga nga ciy xool sa bopp ci ban groupe nga bokk su fekkee da ngaa bokk ci groupe bi nga xam ne mooy charte yooyu yëpp bu fa dajee ci yow da ngaa war a woor nga xam ne kon ci ñu war a woor yow ci nga bokk su fekkee ci beneen groupe bi nga bokk am na chart yi nga xam ne tege na ci sa kaw yàlla nattoo la ko ba mënuloo woor am nga ci sa wala sa kartan du la ko may nga xam ne ci groupe boobu nga bokk itam su boobaa di nga xam yow naka ngay def loole nag doon nañ ko waxtaan buñ ci defee tuuti dellu ginnaaw rek ci lu gàtt waxoon nañ la nit ki pour mu mën a woor dafay fekk mu nekk jullit kon koor koor gi warul yéefar fala yajibu ala kafirin loolu jàlloon nañ ci ba mu leer waaye itam koor gi itam sopp nañ ci maanaam bokk na ci charte yi ki ko war a def nekk ko am xel du nekk koo xam ne dafay dof loolu itam indi nañ ko ba mu leer yaani al aqil fala yajibu ala majnun waxoon nañ itam ba tey charte yi itam yi tax nit ki mën a woor bokk na ci charte yooyu itam nit ki ci jëmm boppam mu nekk koo xam ne dafay dal di majeur majeur leeraloon nañ la ko yaakaar naa ci suñu dars yi paase ci euh, ki nga xam ne su fekkee yi may wax signes yi nga xam ne tabaarakallaahu indi nañu ko nga xam ne léegi yow majeur nga mu kallaf nga kon koor gi war na la su defee bay na xaw say ni tuuti rek nit ki bu fekkee góor nga ci sharia wala ci lislaam am na borom xam-xam yi wax ni su fekkee góor nga boo amee 18 ans nga bàyyi xel ni mu kallaf nga bu fekkee jigéen nga am na ñu ko natt ci 16 ans wala su fekkee da góor ngi ku góor ki dafay tëdd guddi commencé gént tabaarakallaahu ma xam ne léegi mu kallaf la bu fekkee jigéen la tabaarakallaahu muy gis fóot eh, ñu di koy wax regl mbaax ah nga xam ne léegi yow tamit mu kallaf nga wala nga gis ci yow place yoo xam ne daawul sax karaw tabaarakallaahu nga gis place yooyu ci yow tàmbalee sax karaw ta daawu ko am nga xam ne léegi yow tamit mu kallaf nga loolu ci gàttal lañ lay tënkal ci ki nga xam ne mooy ki majeur kon signes yi bu la gaaree na nga xam ni lañ la waxoon rek nekkatuloo xale tabaarakallaahu yàlla génne la ci kalaasam ndaw ñi dugal la ci kalaasam mag ñi loolu leeraloon nañu ko su ci ki nga xam ne mooy ki euh, laabul parce que pour nga mën a woor ci jigéen in kaanat muslimatan dafay fekk nga nekk koo xam ne dangay ngay laab ci wàllu fóot bi ñu la wax kon bu weeru koor gi ñëwee wala ñu ne suba lañuy ñuy woor wala gannaaw suba yow yi gaar jigéen daat lay gaar ba tax mënuloo woor yooye dangay bàyyi ba daal di set dangay bàyyi ba daal di laab soo laabee nga daal di woor bu dee ki nga xam ne itam jigéen ji nga xam ne itam tabaarakallaahu dafa am doom waaye bi mu amee doom ba noppi ku ne xam ne ni jigéen bu amee doom am na deret ju topp ci ñoom deret ju sobe la loolu itam bu la gaaree ci biir koor gi wala avant koor gi ñëw tabaarakallaahu loola jeexul arrêté wul ba dugg ci biir koor gi itam doo mën a woor kon lañ cey déggee rek mooy koor daal dëgg-dëgg ci wàllu jigéen pour mu mën koo def charte yi bokk na ci nga laab ci luñ tuddee dammul xayd wan nifaas loolee boo ca laabee itam nga daal di mën a woor su ko defee nag bis yooyee nga ci amee dañuy bëgg incha allah nga fay ko su koor gi jàllee danga koy fay buñ ca jugee nag ñu ñëw ci ki nga xam ne mooy almusaafiru nga am na ci charte yi la bokk itam dañuy bëgg ki nga xam ne moo war a woor mu nekk koo xam ne tukkiwul tukki boo xam ne daanaka distance ba tolloo na ak liñ la may ci distance kuy tukki buy bu bu bu bu demee fa mu yegg bu fa demee julli ga daf koy wàññi tabaarakallaahu bu distance ba tollee noonu ci lenn ci li borom xam-xam yi wax ah kon kooka itam na xam ne may nañ ko ci ruxsa waaye kooku itam am na ci ñaari xaal maanaam dañuy bëgg ki nga xam ne dafay tukki su fekkee tabaarakallaahu tukki ba. moom am na kartanu mën a woor ci voyage ba am na kàttanu mën a woor ci voyage ba du ko wàññi dara ah su fekkee loolu mën na ko kon na moom na woor su fekkee itam gis na ni daal moom kartan bi du ko am waaw bu ca wooree dafay lot lool ngiral voyage bi su boobaa itam moom may nañu ko mu bañ a woor loola ruxsala bu mu ci am boo xam ne yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala moo ko may ab jaamam jaamub jullitam jaamab jullit loola yàlla wax na ko sax ne weeru koor daal bu ñëwee ki nga xam ne daal mu ngi nekk ci am tukki walla mu feebar kooka na bàyyi bu mu woor ba koor ga jàll bis yooyee mu jàppal ko ay ay ay app daal di koy fay te nii la ko yàlla suñu borom waxee woon ne fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar gis nga wàllu tukki mi ngi noonee kon kii tukki daal na xool ba amee carte nu mën a woor na woor su ko amul daal mu xam ne ma nañ ko ci ruxsa tabarakallahu mu bañ a woor jëlee nañ ci abi saïd muy nettali a ñoom an nekkoon nañu ak yonent bi sallallahu tukki woon amoon ñenn ci ñoom ñoo xam ne dañoo wooroon waaye amoon na ñenn ci ñoom ci tukki ba wooruñu woon loolee nag bi nga xamee ne tabaarakallaahu loolu am na li leen wax rek mooy ñi nga xam ne am nañu kartan daal mën a woor ci tukki bi nañu woor suñu wooree ah zalika ahsan loolu de lu gën la ñi nga xam ne amuñu kartan itam mën a woor ci tukki bi tamit bu ñu warul tamit ah la kaana ahsan itam loolu tamit lu gën la loolu lépp dafay delluwaat ni rek daal ca la ñu waxoon ci njëlbeen ci ki nga xam ne mooy tukki rek na xool daal su ma mu def mënul may nañ ko ci yombalal nañ ko ci su defee itam ñu jàll ci ki nga xam ne mooy almarid almarid wax nañ la nit ki pour mu mën a woor faw mu wér il faut que mu wér waaye ci wàllu marid nag moom itam ay xaala def ci am waaw nu mu ci amee mooy dañu ne su weeru koor gi ñëwee ki feebar na xool feebaram walla ñu xoolal ko ko buñ ko xoolee moom mu xool feebaram gis ni moom mii kat mënul woor bu wooree ci feebaram bi feebar bi dafay daldi yokk ngir woor gi mu woor maanaam koor gi mën naa tax mu yokk ak feebaram wala koor gi mën naa tax feebar bi mu amee yeneen feebar sosu ci yeneen feebar juddu ca ñëw yokkooti encore ci feebar bi nga xam ne moom la amee woon te loolee lépp nag la koy waral mooy koor gi docteur xoolal ko ko yàlla bu mu nekk docteur bu jullit bu xam li aju ci koor ak tuyaabay koor wala sax bu nekkul jullit nekk docteur bu màndu ci liggéeyam rek ndax ni ki itam mën naa bañ a nekk jullit te wóor lool. am assurance te maandu ci cadre liggéeyam tam xool ko wax ko ko su boobaa moom may nañ ko mu mën a mu bañ a woor dafay duggati ca aaya bale rek ñu waxoon ca njëlbeen ca wàllu ki tukki ki daanaka moom lay indiwaat rek li yàlla wax ni fa man kaa kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin oxar waaye su fekkee dafa dafa feebar nag yenn feebar yi ndaw yi rek tabaarakallaahu taw mën caa woor na woor su wooree tamit tuyaaba doon waaye bu fekkee daal xool ne daal mënu ko daal docteur bi xoolal ko ko daal kooku moom tamit daal du du du woor léegi nag mu des keneen ki beneen xaala bi mooy ki nga xam ne moom yaakaar nañ ni feebaram bii du fi wér ci jamono ji yëpp waaw ña nga xam ne seen xam-xam màcc na ca ci wàllu liggéey boobu muy docteur yi gis nañu daal feebaram bii daal amuñu sax yaakaar ni est-ce que dana wér. wala sax gis nañ ni feebar bi buy wér itam du léegi kooko dañu ne moom du woor waaye dafay dafay leel dafay génne li nga xam ne mooy mudd kon moom bokkul ak kële atte kële moom feebar bi dal na ko docteur ne ko bul woor moom day bàyyi ba koor gi jàll wala ba feebaram bi wér tabaarakallaahu moom mu daal di fay bu fekkee nag ki nga xam ne comme li ñu ci wax ne moom vraiment yaakaaruñ ko ci jamono yii wala kat amuñ ca yaakaar wala boog dana yéex lool te kenn xamul àpp ba moom su boobaa moom du woor waaye day leel day génnee mudd mudd boobu nag incha allah suñu video bii di ñëw incha allah ci kàttanu yàlla moom la ñuy fas yéene leeral ah ki ko war a génnee kan la ak lan mooy mudd haza wa billahi tawfiq wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu